ñu dellu siwaat ak yéen ci sunu téere boobu di mawaahibul xudus fi nafmi nafri cheikhina chanous di jàngale ci wàllum xam-xamu tawxid bu sell bi waaye itam euh, ñu topp ci tawxidu al imaamu ashari ñu war a ñëw ak yéen ci sunu darsu juróom benneel di ñaan sunu boroom mu dimbalinu ci ñu war a tàmbalee ci faslun lii ab dog la fii mutaallaqi sifaati ci ajukaayu melo ya i'lam xamal bi anna kulla zi sifaatin ci naka mboolem yi lay melo laxaa ñeel na leen taalluqun ak aju siwal xayaati ndare dund wa huwa moom taalluq xalaamaa ca la nga xam ne naqaluhu toxal nañu ko waaridan ngir muy aji rot muy aji dikk qul waxal ne talabu sifaati moo di sàkkuk melawa amran mbir zaidan muy aji yokk muy aji dollu min baadi ma sabata ca gannaaw ba mu saxee sabata googu sabatab la woon waayu tax waay wee tax mu def ko noonu fi mahalliha ca jëmmam ja faafaz na nga watt na nga wattu taxalluqu sifaati ajuk melo ya kulliha mboole seen te dafay ñëw ci dog bi ñuy wax melokaan yi nga xam ne moom la ñu waxoon ci wàllu suñ borom bi tabaraka wa la melokaan wu ci nekk rek dana am fu muy aju dog bi nag bu mat a jàpp la ndax boo ko xamee dana tax nga xam bu baax a baax dog ba ca topp mooy bu ñu wax ci wàllum xusuus ak xumum dana tax nga comprendre ko bu baax a baax ca lañ cay wax kon mat naa xam nee mboole mboolem melokaan yi nga doon wax ci ñaar fukki melo yooyu bu ci nekk dafay am ak taalluq ak taalluq mooy melokaan yi bu saxee ci jëmm ji faaw mu am fu mu jàll feeñ fa ci misaal xam-xam bu fekkee ne dañu ne suñ borom melowoo na ko faaw mu jàll ca la ñuy xam naka noonu dégg itam faw mu jàll ca la ñuy dégg hmm. gis itam faw mu jàll ca la ñuy gis jeexit moom mën nga koo misaale lu mel ni kàttan suñu borom gi ak coobareem dafa aju dafa jeex feeñ na ci mboole mbindeef yi nee melokaan yi nga xam ne limun na ko nag ñoom ñëpp am nañ taxalluq ba mu des alxayaatu alxayaatu dund nee moom rek mooy li nga xam ne amu ci taxalluq Mm-hmm. kon mu leeralal la melokaan yooyu benn bu ci nekk fa mu aju xudratuhu kàttanam nga moom yàlla summal iraada topp nammeel ga maxan boole seen taxallaxaa aju nañu ñoom ñaar bil mumkinaati ci mbindee fi jumaa mboole seen da nga waxoon ne suñu borom amee na alxudratu ak al iraadatu kàttanu yàlla gi ak coobare gi day dafa aju ci mbindeef ndax mbindeef dana ko wax léegi ñaar la dafa am lu mën a am te am am loo xam ne itam dafa mën a am waaye amut lu ci nekk rek kàttanu coobare gi kàttanu yàlla gi ak coobare yàlla gi feeñ na ci bu baax a baax kon kàttan ak coobare dafa aju ci bindeef moo tax mu ne wal mumkinaatu mbindeef walla aji ma aji aji jàppandi ja xadd atat dikk na xismay ni ngir mu muy ñaari xaaj xadd atat dikk na xismay ni di ñaari xaaj mawjudaha la am ci ñoom wal xaqsu ak safaan ba duuna may nin ci lu fen nee na mbindeef buñ ko waxee mooy loo xam ne rek ak amam man naa am muy jaayis rek xam ne mën naa am mën naa ñàkk loolu nag nee na ñaari xaaj la mooy la nga xam ne moo am ak la nga xam ne itam amut maanaam la xam ne moo am ak la nga xam ne itam mënoon naa am te amut ñaari xaaj mooy ñaari xaaju mbindeef mooy la mën a am te am ak la mën a am te amut mmh. wal mumkinu mbindeef ma mooy ak ja mën a am ja al ja di yuñ fekk wala nga ne seddaleef na ko ji man ñetti xaaj maadin lu wéy wa aatin ak aji dikk summa xaalul topp aji teew ulima lool xameef na ko ka mislil ajdaadi ni ki kem maam ya wakal abnaa yi ak ni doom ya waka xudurinaa ak ni suñu teew bila xafaa in ci lul ak nëbbu waka samaa yi ak ni ki asamaan wal araadi yi ak suuf ya wal xalami ak xalima ga wal xarsi ak xaras wal kursi yi ak kursi yu laatan sa bul fàtte al xisama séddale ga wala cër ya naka noonu itam mbindeef danga waxoon ne ñaari xaaj la muy la mën a am te am ak le a am te amut waaye nee la nga xam ne moo mën a am te am itam dañ koy séddale ñetti xaaj muy loo xam ne lu wéy la ni ko suñuy maam ak sunuy maamaat daa bokk ci xaaj bi nga xam ne la mën a am la ci am waaye lu wéy la ñetti xaaj luñ koy séddale ak itam loo xam ne lu teew la ni ki ñun ñi ak uh, lu mel ni asamaan si ak suuf si ak xalima ga ak aras ak kursiyu ak lawxul mahfuz yooyu yëpp nga xam ne lu mën a am la ba pare mu ngi teew jamono ji lu am la ba pare teew ak loo xam ne itam lu ñëwagul la ni ki suñuy sët ak suñuy sëtaat ak mboolem ci li nga xam rek ne sunu borom namm na ne dana ko amal te ñëwagut kon mbindeef ñaari xaaj lañ koy def muy la mën a am te am ak la am te amut la mën a am te am itam ñu def ko ñetti xaaj muy lu am ba wees ak loo xam ne lu teew la ak loo xam ne ak seegut wal mumkinu mbindeef ma muy aji jàppandi ja al maxduumu jadi ju ñàkk ay ren ba tey xaddu xusima seddaleef na ko salaasata aqsaami ñetti xaaj xindaman fa nga xam ne alima xam na imaanu kaafirin moo di gëmuk ab yéefar wa kufru muslimin ak weddik ab jullit saali ñetteel ba alwaladu mooy doom min dil xukmi mu bàyyi ko ci mboroomu njërmel njërmel maanaam mooy jaasir ku mënta am doom mooy jaasir ku amul doom naka noonu itam danga waxoon ne mbindeef la mën a am te am la ak la am te amut xam ne ñaari xaaj nga ko defoon la mën a am te am nga waxoon na ñetti xaaj la muy lu am ba yàlla ak lu teew ak lu ñëwagut nee na itam la mën a am te amul itam ba tey dañ koy séddalee moom itam ñetti xaaj ñu koy misaale gëmu ab yéefar yéefar bi nga xam ne dafa dund ci ak kéefar ba faatu kooku xel nangu woon na ba muy dund mu tubbi maanaam mu tuub laa bëgg a wax dugg ci lislaam kon benn ngoog ñaareel ba mooy jullit bi nga xam ne dafa dund ci ak jullit ba xëy génn àdduna ba faatu kooku ba muy dund xel nangu woon na mu génn ci ak jullit dem ci ak kéefar ñetteel ba mooy yu bari ci yi nga xam ne yu bari ci yi nga xam ne dafay faral di am ci diggante góor ak jigéen ki bari yoo xam ne danga ko gis xam ko xam ne lii ma ngay jaar fa nga xam ne fala góor ak jigéen di jaar di am doom te ku mel noonu borom du amale ci moom doom nga gis koo xam ne dana yor jigéen fekk kook suñ borom na ci jigéen jooju na dana am doom tam jigéen jooju kat ma ngi jaar fi moroomi jigéenam di jaar te mooy jote di am doom te ku mel noonu du am doom te kooku xel nangu woon na suñ boroom amale ci ku mel noonu doom kon la mën a am te amut ñetti xaaj la mu yéefar bi nga xam ne dafa dund ci ak kéefar ba faatu xel nangu na ba muy dund mu faatu ci ak njullit mu dugg ci lislaam njullit bi nga xam ne itam ci ak njullit ba faatu xel nangu woon na ba muy dund mu génn ci diine yi dem ca yéefal ga ñetteel ba mooy lu bari ci li nga xam loo xam ne góor ak jigéen la ñuy jaar fa nga xam ne fa la góor ak jigéen di jaar di am doom te duñu am doom kon ñetti xaaja ngoog wa masala misaale na alxismayni ñaari xaaj ya zu tawfiq boroom dëppale ak yàlla bi ko abi jahlin ci lu ko mel ni abi jahlin wa ka ak niki abubakarin siddiq ñaari xaaj yi nga waxoon te mooy jullit bi nga xam ne dafa dund ci ak njullit ba faat ba faatu ak yéefar bi nga xam ne dafa dund ci ak kéefar ba faatu dañ koy misaale ku mel ni abu jahlin xam ne daa dund ci yéefar ga ba faatu ak itam ku mel ni abu bakrin siddiq dund ca njullit ga ba faatu yooyu yëpp rek bu ci nekk coobaree suñu borom feeñ na ci bu baax ak kàttanam xam ne lu manoon a am la te suñu borom amalu ko moo tax mu ne li annahu ngir naka moom yàlla jàlla màgg na xadara attanoon na ala ji ci yile su mu namm topp mu bëgg kaw naha seenu nekk an la bu deefu leen bañ a gis waaw lii mu la ci nekk suñu borom attanoon na ko mënoon na ko waaye nag ci coobareem moo tax yooyu amut wa alliq na nga aj al ilma al ilmu muy xam-xam wal kalaamu ak kalaam yaa nabi dañoo aji xellu bi waajibin ci aji war wa jaisin ak aji dagan wa mustahilin ak aji jomb ba mu ngi jàll ci di la wax melokaani bu ci nekk fa nga aju mu ne al ilmu al kalaam moom mën nga ne ci lépp lépp lépp ca la aju ndax ñett yi rek moo fi nekk mooy waajib ak mustahil ak jaayis te xam-xamu yàlla bi ak wax ji moom aju na ci yooyu yëpp waajib mooy loo xam ne lu mënta ñàkk la mustahil loo xam ne lu jomb la jaayis nag mooy loo xam ne lu mën a am mën a ñàkk la te yàlla bi ak waxi yàlla ji moom aju na ci yooyu yëpp yëpp yëpp wasamxu samx muy dégg wal basaru ak gis qad taallaqa aju nañu bi kulli mawjudin ci lépp lu am zara man fak nga xam ne xaqaqa dëggal na samp ak basar muy déggu yàlla bi ak gisu borom bi nee ne aju nañ ci lépp lu am xam nga ne lu am rek moom lañ mën a dégg lu amut mënee su koo dégg mënee su koo gis lu amut mënee su koo dégg waaye itam lu amut mënee su koo gis kon samp ak basar ci lu am rek ca lañu aju mhm. waxasamoo séddale nañu al mawjuda la fekk moo la am lil xismay ni jëm ci ñaari xaaj zi xidamin boroomu jiitu wal xaq ak safaan ba duuna may niñ ci lu dul fen amal xadiimu daal aji jiitu ja faka zaatin mu ngi mel ni jëmm wa sifaatin ak ay melo la ñeel yàlla wa asmaain ak i tur kazaliki nii xaala la waxe ashiqaatu ña ñuy dëgërloo danga waxoon ne mbindeef ñaari xaaj la muy la mën a am te am ak la mën a am te amut waaye fii da wax na lépp lu am rek ba suñ boroom duggaale ci biir ba tey itam dañ koy séddale ci ñaari xaaj benn xaaj mooy loo xam ne dalewut fenn ni ki jëmm suñ borom ju tedd ji ak ay turam ak ay meloom yooyu nga xam ne dalewut fenn mooy benn xaaj bi xaadisuhu aji sosom ja salaasatu ñett la maadin lu wéy wa aatin ak aji dikk baynahuma yooyu nekk na ci seen diggante ñoom ñaar xaalun lu teew ka ardin ni ki suuf wa nabaatin ak ay gàncax beneen xaaj bi mooy li nga xam ne lu am la ba pare dale fenn mel ni mbindeef kooku itam dañ koy def ñetti xaaj comme ni mu la ko waxee woon mooy loo xam ne lu wéy la ak loo xam ne lu teew la ak loo xam ne itam lu ñëwagut la looy misaale woon na ko mel ni suñuy maam ak suñuy maamaat lu teew itam mu misaale ko comme ñun ak ni ki suuf ak ni ki asamaan loo xam ne itam lu ñëwagut la mel ni suñuy sët wala suñuy sëtaat xaqiqatul ilmi dëgg-dëgg xam-xam bi li man ci waxi ka nga xam ne salafa jiitu na sifatun aw mela lay doon woo xam ne almaalumu lañuy ñuy xam xul waxal ne in wuññikoona bihaa ca moom xalallazi ci anam ga nga xam ne xoo moom bihi nekk na ca inkisaafan ak wuññiku ak muriku lam yaatamil goog jamtaluwut naqsan genn manki wala xilaafan du caa genn genn wuute bi ay wajihin ci gumu ci ak anam min wujuhin ci ay ci ay anam tuxalu yooyu dees na leen xel fadim na nga diinewoo bi taaxatin ci ak topp tusab kon dees na la yool yaa rajulu ya waa ji ñu daf lay xamal xam-xam buñ ko waxee liñ ci jublu xam-xam bii ñuy wax day xam-xamu yàlla bi day mooy ki nga xam ne lenn lu ne na mu doone la ko xamee ci anam goo ko man na walbati rek sun boroom xame ne ko noonee ci anam goo ko mën a walbati rek yàlla xame ne ko noonee waaye nga xam ne xam-xam moom buñ ko waxee mooy ki ko amee mooy ki xam mbir mi na mu doone ci anam goo ko mën a wëlbati rek mu xame ko noonee na mu doone nga xam ne du am dara dara lu cay yokk du am dara itam lu cay manqué ci anam goo ko mën a wëlbati rek suñu boroom xame na ko noonee ndegam nag xam-xam aw melo la wuy takk ci jëmm su boobaa itam du ñàkk fu muy aju moo tax mu ne maalumu say in lu ñu xame dara kullama mooy lépp loo xam ne yaslahu dana yëw an yulama bu dee fi xam ko min ahkaami xaqlin ci attee xel fi zamanin ci jamono min waajibin ci aji war wa jaisin ak aji dagan wa mustahilin ak aji jomb fa xayruha yudut yooyu daha jombal na safihan aji deseedi wa nabilan ak aji xellu nee na xam-xam day dafa yaatu lépp luñ mën a xam rek dugg na ci biir waaye lépp luñ mën a xam itam du génn ñett yi benn lañuy xam nekk waajib mooy lu mënta ñàkk wala la xam nekk mustaxil lu jomb wala lañuy xam itam nekk jaayis lu mën a xam lu mën a am mën a ñàkk nga ñett yooyu moom dara dara dara mun koo génn ka ëpp xel ci àdduna tanewu ci ka gën a ñàkk xel ñett yooyu xam-xamu yàlla bi nag aju na ci mbooleem ñett yooyu muy lépp lu ñu war a xam rek yàlla xam na ko lépp lu jomb itam yàlla xam na ko lépp lu jaayis itam lu mën a am mën a ñàkk xam-xamu yàlla bi itam aju na ci foofu xame na ko namu doone xaqiqatul kalaam yi dëggi-dëggi kalaam maanan maanaa la moo xam ne xaama taxaw na bizaati man ci jëm yàlla mi nga xam ne xadd awjada amal na al anaama mbindeef ya muhabbaran ngir moomuy lu ñu firee xam walif ko bi maa ci lépp loo xam ne xadix talafa wuute nag minal xibaaraat yi ci xeeti waxin yi ala xawli salafi ci waxi dawal ba daf lay xamal bu ñu waxee alkalaam muy wax yàlla ji luñ ci jublu mu ne wax yàlla ji de moom ni nga umpalee jëmmi borom bi tabaraka wa taala noonu nga umpalee ay waxam waaye nag wax yàlla ji wute na ak waxi mbindeef wax yàlla nag lépp loo xam ne bëgg na ko wax ak ay mbindéefam da koy jaarale ci ay yonentam ñu jottali ko ci seen làmmiñu bopp ni ki tawreet ak injil ak sabuur nga xam ne jëmmi téere ya wax yàlla ci kaw maxanaa rek mooy wax yàlla waaye baat ya nga xam ne nag moom la ñuy jëfandikoo loolu ci yonent yi la bàyyikoo ko xam ne jëmmi maxanaam rekk mooy doon waxi yàlla ji bam des nag alquran alquran moom wóote na ak mboolem téere ya nga xam ne ñoom ñoo ko jiitu nga xam ne yi ni mu dikkee noonu lañ ko wàccee ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nga xam ne yokku ci xaraf wàññiwu ci araf moom yonent bi sallallahu alayhi wa kon alquran wuute na ak yeneen ko jiitu nga xam ne yeneen téere day mel ni day am taxawaayu xadisul xudus yu xam ne bi mooy nettali ay baat yoo xam ne yonent bi moo koy nettali waaye ci maanaam waxi borom bi la nga xam ne yonent bi dafay jottali waxi yàlla alquran nag moom wuute naag téere yooyu nga xam ne ñoom ñoo ko jiitu woon mu bàyyi nan ngir mu may aji facconteeg ngir mu may aji wóotanteeg ngir mu may aji soranteeg xam ci lépp loo xam ne waaw mu bàyyi nan ngir mu may aji facconteeg ngir mu may aji soranteeg di aji wóotanteeg aydan ba tey li jinsil xarf yi ñeel xeetu xaraf wa sawti ak kaddu wal fikrati ak xalaat duna xulfin ci lu ak wuute munazahan tey lu ñu sellal xan laxnin walis xeetu yàq aw tajaddudin wala yeesaka yeesaat wal kulli ak lépp wal baadi ak lenn wa bit taraddudi ak ci ak déng-déng wa hakaza ni ki nii a taaxiru yeexe wa taqdimu akuk jiital wa sumti ak noppi wal ixraabi ak ixraab ñu analysé yaa xamimun yow xarit bi wa xayrus yi ak yurut yi yu bokkut ak yi min at taxayuraat yi ci xeeti soppiku waxin yi subhaana rabbi yi tudd naa sellug sama borom al kaamili sifaati ke aji mat ay melo ne na wax yàlla ji day wóote na ak waxu mbindeef ndax waxu mbindeef kat dafay am araf dafay am itam kàddu dafay am itam xalaat mbindeef bu dee wax dana xalaat la mu bëgg a wax wax yàlla ji nag amul araf waaye amul xalaat amul itam kàddu comme ñu ngi ko xamee ci waxi mbindeef mbindeef itam bu dee wax danañ wax ne nam waxe kat jub na wala nam waxe tam da koo yàq jubut batay mbindef budé bu dee wax dana di faral di yees ak yeesaat mel ni bu sonné coono ba tax moy feeñ ci wax ja wala bu sawaré nga gis wax ji na muy mel ak bu gëmento itam nga gis wax ja na muy mel mbindef itam budé dee wax danañu wax ne mom kat lamu wax dafa ëmb lepp lepp lepp wala ñu wax ne mom kat lamu wax ëmbut lepp da wax lenn bayyi lenn itam budé wax dana di faral di déng-déng ci ndax lii danaa ko wax wala ndax lii duma ko wax naka noonu itam bindeef bu dee wax dana am lu mu jiital am nu mu ko tegalee dana am itam lu mu mujjal nga xam ne dana am nu mu ko tegalee noo xam ne ku ko tegalee wut noonu rek du jub naka noonu mbindeef bu dee wax dana noppi benn mu wax ba àggal noppi wala ci biir wax ji sax mu am ay noppi naka noonu itam mbindeef bu dee wax dana am muy tegalee baat yi mel ni ixrab léegi ci arab moom da cay feeñ bu baax a baax ci baat bi mujjantal ga nga marchalee demaat ci beneen baat ci mujjantal ga nga march fa leneen lu bokkut ak loolu yooyu yëpp dafay feeñ ci waxi mbindeef waaye waxi wax yàlla gi nag moom wuute na ak waxi mbindeef mbooleem lépp loo xam ci waxi mbindeef rek jàppal ne waxi suñu boroom wuute na ak waxi mbindeef yàlla moo sàkk mbindeef moo sàkk lépp li mu sàkk nag moom yàlla amut dara dara dara dara dara ci nuróol ci lenn lenn lenn lenn hmm. kon wax yàlla ji moom buñ ko waxee rek nanga nga umpalee yàlla ji na nga umpalee ay waxam wuute naag waxi mbindeef yi nga xam ne moom nga xam di ko dégg summa alxayaatu topp alxayaatu sifatun aw melo loo xam ne xadd saxaxat wéral na idraka saatihi jot jotug jëmmam ja faqat dong kama sabatat naka mu saxe lisaaka ngir loole lam taqta di sàkkuwut zaidan jenn aji yokku ala xiyaamiha ca taxawam nga bizaatihi jëmmam ja moom yàlla jàlla màgg na wa jàlla màgg na xalaa kawe na fukkul wasfin wépp melo laa yarum wow du sàkku zaidan ak ndollem ak yokku falaysa za taalluxin déet muy boroomu aju ku nekkal rachidan di aji jub nee na alxayaatu day aw melo woo xam ne wu sax la ci jëmmi suñ borom tabaraka wa di melo woo xam ne ci jëmm ju mu amul nag kenn du wax ne dana mën a jeexantal ci dara alxayaatu moom muy dund jëmm joo xam ne amut ak dund moom faaw mënoo wax ne dana jeexantal ci lenn waaw dund moom jëmm ju mu amut amut dara loo xamante ni dana ca jeexal dana ci jeexintal kon alxayaatu aw melo la woo xam ne wu sax la ci jëmm yàlla waaye nag ba mu saxee ci jëmm yàlla ba pare nag sakkut lu cay yokk sakkut lu cay dolli ko waaw aw melo rek woo xam ne wu sax la ci jëm yàlla dalaa waxoon ne melo yëpp am nañ taxalluq ba mu des alxayaatu mooy nag aw melo la woo xam ne wu sax la ci jëm yàlla waaye ba mu saxee ci jëm yàlla sakkut lu cay dolliku te wépp melo woo xam ne dafa mel ni alxayaatu moomu waaw wépp melo woo xam ne dafa mel ni alxayaatu ba tey itam noonu rek la mel amut taxalluq waaw loolu da ci déggee yeneen melokaan yi ci des mooy alxidamu albaqaaw muxaalafatu xalq alqiyaam bi nafsi alwaxdaaniya yépp melokaan woo xam ne rek dafa mel ni alxayaatu googu du am taalluq kon xam naa mën nañoo taxawlu foofu ba dellusiwaat door jàll ci bunt bi gi topp lu fi jum ñu xam ne suñ borom la lu fi dëng ngeen jéggal ñu ko te jubbante ñu ko wa sallallahu ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa xadimihi wa ummatihi wa sallama tasliman wa salaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh